nañ am pàcc yu bari yoo xamante ne nañ ko nañ ci dugg waxtaanee ko euh, damay njëkk a ñëw ci Adama Fall Adama Fall lan moo ko motiver ci politique. bon euh, accident de l'histoire mhm. nekk xale nekk rue 39 angle 28 sama quartier Ndiathiar tali yi yàqu ma nekk xale di jàng di dem di ñëw tali yi yàqu jamono jooju jamonoy Abdou Diouf la ñoom am fi benn mag bu ñuy wax Maguette euh, Ndiaye. Mhm. tale yi yàqu ñu toog ñu révolutionné wu ne lii warul continuer il faut ñu jóg ñu defar suñu réew comme comme genre activiste yu te am jamono jooju activisme amuloon. Mhm. loolu moo ñu dugal ci ci politique. du leneen lu dul loolu. c'est-à-dire on a vu que suñu dëkk doxuloon ñun ba ñu juddoo ba ni ñu màggee suñu koñ ni mu meloon soppeekuwul. Mhm. ñun ñu jóg ne dañuy changer suñu suñu koñ. foofu la ñu commencé nekk ci association yi ba yàlla def nag ñu dugg ci politique avec. parti bi nga xam ne mooy parti Abdourahim Agne mhm. fa lañ nekk ba def deux def defa quatre ans après Macky Sall créé parti ñu dem accompagner ko dans le cadre de l' alliance pour la république. ok waaw mais mais mais Adama Fall ñëpp xam nañ la parce que man damay wax ne bokk nga ci ñu ma gën a naw ci ñuy défendre président de la république ñi ñi may seetaan bëgg naa ñu xam c' est très difficile souvent am waa APR ci yenn plateau yi ñu bëri dañuy daw débat bi mais quand dama gis ne. tout le temps tu au front yaa ngi dem ci plateau yi yaa ngi dékku ay saaga ba <laughs> euh, li ma li ma mujj fàttaliku mooy euh, événement février mars yi passé ministre yu bëri daw laqatu cadre APR yu bari daw laqatu koo invité ci plateau yi mu lànk Adama Fall bi ñu la woowee da nga ñëw ci plateau bi ba am na aussi loo ca daj sa njaboot daj ko ci. bon loolu c'est c'est bien normal là parce que mënuñu ne diw ji la ñu gëm moom la ñu àndal après du rasu. ñu koy def gëmuñu Macky pour man ñi nga xam ni dañ leen di woo ci plateau tooguñu gëmuñu Macky te ñun nag euh, ba ñuy ànd ak Macky Sall gëm-gëm moo taxoon. Mhm. am na ñoo xamante ne nag poste ak responsabilité moo leen tax di daw. Mhm. ñun poste ak responsabilité taxuñu daw parce que dañ ne mooma xam nga maas su ma taxawee ne maas moo fi gën ku nar a wàññi doole maas wala leneen dama war a taxaw xeex. Mhm. mais malheureusement ñoom duñ ko def. mais man sama taxawaay mooy. dama war a xeex pour Macky dama war a xeex pour Alliance pour la République parce que dama war a xeex pour pour sama parti jëm kanam dama war a xeex pour Macky Sall réussir. Mm-hmm. képp koo xamante ne da nga taxaw pour faagaagal projet bi nga xam ne moom la Macky Sall am sama bakkan laa la war a jox. parce que dañu am projet pour le pays. Mm-hmm. malgré nag coow li bëri yi li am nii naan deful dara ak nii na mais le président Macky Sall dafa amoon projet dafa am projet pour le pays bëgg jëlee Sénégal fenn yóbbu ko fenn. Mm-hmm. ñun ñu war ko cee accompagner nag war a li muy def war a xeex ndax moom. ok maintenant keneen ku def choix ne doo xeex ndax moom yow la maintenant dafa am beneen affaire bu ci am dafa am aptitude yoo xamante ni du ñëpp ko am mais ni ngay andi ni ngay présenter sa émission du ñëpp ko mën. Mhm. dafa am aptitude yoo xamante ni peut-être am naa ko am na ñoo xamante ni amuñu ko ñoom beneen aptitude la ñu am man sama rôle mooy en tant que militant du ma xaar partie bi di ma yónni ci plateau télé ma koy défendre du ma xaar président naan ma demal taxaw défendre ma du ma xaar kenn sama coobare bopp laay jël taxaw. porter le combat du président Macky parce que ba may ànd ak moom saxaluma lem saxaluma dara xaaruma ci moom ñaari salaamaaleykum je vais donner mon corps et mon âme pour le président Macky Sall. parce que loolu mooy sama cër. Mhm. maintenant nag tappet yi fi xam ni ñoo nekk ci biir alliance pour la république di daw ñoom ñoo am seen ragal rek di daw. mais Adama Fall moom du daw tey kon kon kon kon biir biir kon yaa ngi dëggal ne biir parti. mais affaire yaa am am ay tàppet lañu. am na ci ñoo xamante ni ils ne vont pas au am na ci ñoo xam ne non moo bi da nga ne ay tapet lañu. non dama ne kon ñooñu ay am na ay tapet biir APR. bien sûr parce que gis nga sooy politique di préserver sa image. Mhm. bañ ku la saaga ci réseaux sociaux bañ ku la saaga ci leneen moo tax gars yi duñ toog ci plateau yi. ok parce que ils ont peur de recevoir les attaques de ces jeunes là qui sont là mhm. pour contrer ce que nous sommes en train de faire da am fit rek nga toog parce que saaga bi du takk fenn. ok saaga bi du takk fenn wax ji ñu ñaaw bi ñu doon wax du takk fenn. menace de more yi ma doon jot ba léegi maa ngi dund li sam jabar soxna daj ba léegi mi ngi dund mm-hmm. est-ce que tu comprends mais man sama rôle en tant que militant mooy ma taxaw xeex pour mon parti mais malheureusement ni may xeexee pour le président Macky Sall di xeex pour mon parti dañ may xeex sama biir parti. Mm-hmm, voilà <laughs> parce que parce que parce que débat bi moo nekk noonu man parce que gis nañ ne tey jii au niveau de l'APR mais il y a beaucoup de mais non, président Macky Sall tey jii au au sein de l'APR tey jii mais gis yow. am na ñoo xamante ne. taxaw nañu génn nañu kaas nañu ne. Euh, li muy defal ñeneen ñi di jël ay traître di leen resevoir pale hmm, di jël ñu tekkiwul dara di di démarche ay nit mas lay jox scoop man mosumaa toog ak Macky Sall ba mu faloo ba tey mosumaa nuyoon teeg moom ba mu faloo ba tey Adama Macky Sall cër <laughs> <laughs> no xam nga nañu wax dëgg aussi. c'est-à-dire dama dama mënoo mënoo da ngay def politique mënoo da ngay def politique. xam nga xam nga ki ngay def loo politique di défendre bilan am président Macky Sall faalewu la. waaw non cest à bi nga topp ci ginnaaw am euh, euh, Messi moom aussi lijjantiwu la. bu ñuy jël poste non defal naa ko Adama non quand même quand bu ñuy waxtaan politique aussi politique d'accord di nga gëm projet président de la République.